waa bokki sénégalais maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam di masawu ku di masawu sam bopp ci leen dund ci fan yi ak ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan te day gone yu demagul fenn ak yàqu-yàqu yi ci am loolu dama ci masawu sam bopp di ci masawu sénégalais yëpp na ñim daal lu metti la lu dund lu gënalul kenn te nuy ñaan sunu borom nuy ñaan sunu borom yàlla na delloo si jàmm ci sunu réew mi yal na fi delloo si ak dal yal na delloo si xel yi ki jiite réew mi delloo si xelam ba du déglu ñenn ñi delloo si xelam ba déglu ñenn c'est vrai que fii mu toll moom yaakaar ci moom xel mi dellu si sax néew na waaye nag sunu boroom moom lu ko neex def bu ko neexoon tey mu delloo ko xelam yàlla na ko def mënee su koo yaakaar nag ak ni mu mel ak ñii ko wër mënee su koo yaakaar ak ni mu mel moom ci boppam président de la république ni ko yàlla bindee delloo si xel mi xam naa yomb waaye sans borom dara tëwu ko dana jafe rawatina ni mu mel ak ñi ko wër ñi ko wër am na ci koo xam ne kii day dem ci léegi day wër rek plateau de télévision yi wax bokk ci ñetti sénégalais yi gën a bañ Ousmane Sonko bokk ci ñett wala ñeent Sénégal yi gën a bañ Ousmane Sonko bañ ko bay tàggoo ak seen sago kooku ñëpp xam nañ ko muy Moustapha Diakhaté dégg nañ ko ci fan yii muy wax feni Ousmane sonk di wax ne président de la République te xalaat ne day dialoguer Ousmane sonk parce que Ousmane sonk organisation terroriste la yor dañu ko war a dissoudre non seulement dissoudre ko mais jox yokk policiers yi mu jox leen sañ-sañ tubarkalla tubarkalla policiers yeeg gendarme li ñu tuddee force de défense yi fii mu toll ñu leen yokkalee lii ñu ne lii ñu def xeeb nañ ko nañ ko yokk Moustapha Diakhaté loolu la wax nañ leen woteel lo bu xam ne dañuy gën a jéggi lii ñu ne force de défense et de sécurité yi ñu gis léegi kenn mënatuloo nax kenn avec les réseaux sociaux yi nga xam ne dañoo dawoon suspendre ko xam nañ lu tax li ñu gis teg ci sunu bët Moustapha Diakhaté nee na loolu doyut nañu wote bu loi dolli seeni kii ñoom force de défense et de sécurité yi waaw nee na waxuma Macky Sall bu dialogué Ousmane Sonko dafa trahir Sénégal dafa war a dissoudre Pastef parce que organisation terroriste la jàpp responsable yëpp Pastef bokkuma la res waaye ku ñu su xaw a suspecté ne Pastef nga bokk ku ñu yaakaar ne Pastef nga bokk rek dañ la war a jàpp lii la Moustapha Diakhaté wax waaye ko ñu xaw a suspecté waaw loolu ban yan yan kaso leen di dugal parce que ñi ñu ko ñu xaw a yaakaar ne bokk nga ci passé rek ñu jàpp la waxuma responsable li neen responsable nañ leen jàpp jéeg nañ leen jàpp raafa daanaka dafa nañ leen jàpp rey leen waxoon na fi ne ñii ñu war a rey lépp nañ leen rey ñi ñu war a jàpp nañ leen jàpp loolee mu doon ñaan am na rey nañ lu bon fukki bakkan ak juróom benn man na fukki jot ak juróom-ñeent sax loole moom ñaanam googu amoon na nee woon ku ñu war a rey nañu mu la rey ku ñu war a jàpp nañ la jàpp Ousmane Sonko bu ñu ko war a tëj dañ ko war a tëj booba la jiitu condamnation bu catastrophique bi waxoon na ko Moustapha Diakhaté nag nee na Ousmane Sonko da ko dafay fen fenkat la Moustapha Diakhaté boo jàkkaarloog yenn journaliste yi nga xam ni seen yàggu ñoo fekkee seen expérience demul noonu lu la neex nga wax leen waaye journaliste ba nga jàkkaarloon naan ko Ousmane Sonko mën a fen de mënoon na laa tontu bu amoon xam tuuti xam-xam formation am tuuti fit waaye nag ñoom ñu ci bari léegi tubaarkal la mënoon na laa tontu man de boo jàkkaarloo nag man ne ma Ousmane Sonko daa mën a fen dana la wax loo xam ne doo doo doo nga Moustapha Diakhaté Ousmane Sonko day fen yow nekk nga ak juróom-ñeent wala fukki at koo xam ne kii day fen lu mu la wax du dëgg bu la waxee mu def la ca des muy Macky Sall danoo toll foo xam ne fii dootuñu yërëm ba wax Ousmane Sonko nee nga c'est un menteur dafa mën a fen nekk nga koo xam ne kii fukki at kenn dafa ko fen lu mu nu waxoon di fukk bu ma ñëwee Abdoulaye Wade nga xam ne bii li mu yor ci ministre xamul nu mu toll 48 50 man bu mu ñëwee vingt ministres lay nommé au maximum dootuñu nekk di booxante ca salle ba nga xam ne fa la ñuy defee conseil des ministres ba mu ñëwee lu mu def bu ma ñëwee danaa xeex guerre danaa xeex détournement de deniers publics ñi lekk sunu xaalis danañ ko goxi ba mu ñëwee lu mu def waxuma la xeex ger waaye dafay sooxat ger di ko dundal guddeeg bëccëg aussi au-dessus de tout le monde li ko wane ñépp xam nañ ko day xeex ger day day suuxat ger la mu waxoon ak li mu def ci fukki at ak yi benn comme yàlla ak yàlla loolu mooy lan wax loo lu mel ni danaa def lu weex tàll nga ñëw def lu ñuul kukk loolu du fen dossier yi mu ne teg na ci concam loolu xeex gerte la ñeent fukki dossier of nag yële nekk ca table yi procureur kenn laalu ko te mu duut baaraam yu garaaw garaaw ñi ko wër ñëpp laaluñu ca benn dossier loolu xeex gerte la ka mu njëkkoon a nommé ca bopp of nag muy jigéen ju sel ju màndu ju am xam-xam fulla ak fayda tàmbali fa liggéey bu rafet a rafet a rafet liggéey ba dafa commencé duut baaraam ci ñi ko wër ñoom Umar Cheikh Umar Cheikh Umar nangam Cheikh Omar nu mu tuddati sax ak i Chiré Diak ñeneen ak ñeneen. naka la mandat trois man premier mandat de trois ans jeex le vingt cinq juillet deux mille seize ci bis ba la ñu ko indil décret nag jëlee nañ la kooku xeex na xeex na guerre. la mu waxoon ak li mu def lu mu doon loolu du fen loolu du ensuite CREI boobu ñu def enquête yu leer nañ yow wóor na la yow enquête lu leer ba duut baaraam ñaar fukki at ñaar fukk ak juróom. ñaar fukk ak juróom ñu def enquête ñu ne ñii ñoo sàcc sunu xaalis ñaar fukk ak juróom ñu jot caa gis ñett rocc ko ca ba set wecc déglu nga dama ni Moustapha Diakhaté ne te fiche pas de nous déglu nga le l'ex procureur spécial Aliou Ndao la mu wax ci Abdoulaye Baldé te loolu mënoon na ko wax ci Omar Sarr mënoon na ko wax ci euh, Samuel Sarr mënoon na ko wax ci ñoom ñoom 25 cinq yooyu yëpp bañ ko enquêté dans le cadre de la commission de la haute cour de justice conclusion patrimoine de 4 à 5 milliards ñu mu war koo jàpp yaa ko dégg mu wax ko de Sénégal ñëpp dégg ko Macky Sall woo ko ne ko bay bay la bay la lay balde jox bàyyi ko jox ma dossier yaa ko dégg ñëpp ko dégg Aliou Ndao moo ko wax te ñëpp a ko dégg ana Ablaye Balde tey mu def ko directeur général APIX loolu la mu waxoon ak li mu jëf ji ànd na loolu duy fen le 14 juin 2012 mu accordé benn interview Jeune Afrique Béchir Ben Yahman Ahmed boobu mu ngi dund la ko wax bonne gouvernance une politique sobre transparente et vertueuse nam ko le 3 avril 2012 en s'adressant à la nation répété devant Bachir Ben Ahmed pour la première fois mon corps wax dama def déclaration de patrimoine Je j'étais pas obligé et voilà il s'est dit c'est voilà def déclaration de patrimoine même si ça ça a suscité une polémique stérile té à la fin de mon mandat je vais faire une nouvelle déclaration de patrimoine Il y a, dégg 2019 2012 2019 2019 on fait une déclaration de patrimoine Il y a xam nga ni ko dans un pays comme le Sénégal qui fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés Je def déclarer patrimoine 8 milliards Je ko man dama ay wax oui 4, 5, même pour des 3 milliards. 3 milliards. Un candidat rentrant dans un pays comme le Sénégal, qui fait partie des 25 les plus pauvres et les plus endettés. 8 ans, il me fait à côté de Bayard. Il faut que 3 milliards. ba ñu waxee coow ma ne da koy weddi yaa ko dégg yow yaa gën a nu mu tuddati ci àddina waaye dégg nga ko ñu wax mu ne moom ak Ablaye Wade dama ko may yaa dégg ne Ablaye Wade da day fen da ngaa yàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko a bon dos Ousmane Sonko rek ay fen je vais mener une politique transparente sobre et vertueuse yow mii xam nga ne ay fen la politique ba ñu mënee boobee ba tey xam nga ni du booba ba mu déclaré woon je vais le président de tous les sénégalais yaa ko dégg ci charmam loolu ak lim li mu nekk lu mu tey ji Sénégal xam nga ni divisé na ko ñaari ñaari pàcc waa kër Kumba am ndey ak waa kër Kumba ko kenn mënut ko weddi yow ci waa kër Kumba am ndey nga bokk xam nañ fi nga jógee ak fi nga toll léegi loola duy fen taxaw fii du ma jël mukk décret sama rek sama rek yi ma di ko nommé dara je ne prendrai jamais un décret pour le nommer en poste de responsabilité Aliou Sall xëy suba mu nommé ko à la tête de la caisse des dépôts et de consignation qui ba na am solo ci Sénégal ak i milliards ñepp xam nañ la ko fa yóbbu woon waaye scandale ba ko fa jëlee xam nga ko loolu duy fen ak lu yoo xam ni du jeex du xaj et puis un président de la République qui est un receleur mako wax nañ ma japp de teg sama ci dossier dem a trahison mais y a tout dans la gouvernance de Macky Sall est trahison trahison de ses engagements trahison du peuple 2 avril 2012 ba lu bare bare bare lu il a trahi le peuple il a trahi son serment Ousmane il faut arrêter bu am na ku ne ma boo dafa dafee ne da nga mandi naanoo sàngara waaw du loolu de man de super suis persuadé mais mandi nga xam nga lu la mandiloo ak coxor ak añaan coxor añaan yaag ñeent ñi gën a bañ Ousmane sonk ci nga wax booy booy xam da ngay tàggoo sa saako da ngay mën nga mandi naan sàngara sàngara si mooy coxor ak coxor gu la jàpp ak bañ ko baax li ngay wane nekkul ci yow Euh, Moustapha Diakhaté njub gi ngay wane nekkul ci yow fulla ak fayda gi ngay wane lii lépp c'est apparent c'est des apparences bavardes et trompeuses mani Moustapha Diakhaté nit ñi xamoon nañ la avant deux 2000 mani man depuis cinquante ans maa ngi daal dans le landerneau politique Moustapha Diakhaté avant mille loo doonoon Abdoulaye di ñëw nga ànd ak moom ba ba ba muy dàq sa waa ji assemblée nga topp ànd ak moom mu nekk président de la nga député nga nekk ñaari législature nga nekk président du groupe parlementaire mais nous, tuddati Moustapha nun dof nous savons comment l'assemblée générale est gérée nous savons comment ce qu'on peut appeler la caisse de l'assemblée est tenue avec le caisseur inamovible qui est là-bas nga xam ko le caisseur inamovible qui est là-bas nga nekk président groupe parlementaire avec un salaire de 4 à 5 millions yow dañoo wax sax benn bi sax yaa rectifié am na ku nga ni ko déedéet 4 la wala 5 yaa ko waxal sa bopp bu dee ñu fab nangam million teg ko ci sa loxo en tant que nu mu tëddee bu dul ci it ñu jox leen ko yéen groupe parlementaire. Benno Bokk Yaakaar ngeen koy saax saaxee wax nga nañ ni ngeen koy seet ñëpp xam nañ ko ñaari législature nga nekk ko président du groupe parlementaire ñaata million nga fa lekk. Sinon, les finances publiques dafa les finances publiques ne sont pas gérées n'importe comment donc pendant deux législatives, saax-saaxee ak ba vous n'avez jamais fait l'objet d'aucun contrôle Quoique, alors que c'est les deniers publics c'est les finances publiques loo xam ne lii yow xam nga ko dafa jënd pas.

booba suur nga regg na nu bul nu nax booba suur nga regg na regg nga dama ni deux législatives yooyu nga nekk et ça se poursuit bi léegi buñ ko audité woon yaag ñu baree bari di nga ngeen am ay jafe-jafe nga regg ne buggatoo dem mu def la ci wetam xawma lu ngeen def ba nga jóge fa mais je ne crois même pas que da ngeen a réeroo man jàpp ma ne da ngeen a réeroo mënoo réeroo ak Macky Sall ba pare nekk xaritu benn bakkan soxnaam am na ñu ne yaa ko wax man nag dégguma ko ñu ne yow yaa ak moom benn ngeen muy soxna si man ngaa nekk benn ak soxna si ba pare keeg ne nous trompe man sa réeroo ak gëmuma ko au contraire da ngeen di nax sénégalais yi da ngeen di nax sénégalais yi. donc boo ensuite euh, Moustapha Diakhaté yaa yàgg a bañ Ousmane Sonko gis nga li ko rajee yow ca nga Bok. fuñ la musaan fekk bi nga nekkee président groupe parlementaire yaa ngi ci Ousmane Sonko Ousmane da koo bañ la ko rajee ca la décret ce décret qui a violé la loi portant code de transparence de la gestion des finances publiques je le dis ce décret a violé cette loi parce que lim Ousmane Sonko en tant qu'opposant et en tant que député il était dans son rôle d'informer les Sénégalais sur la manière dont nos finances publiques sont gérées qui leur règle la lire le code de transparence loi portant code de transparence dans la gestion de nos finances publiques Dans nga Ousmane Sonko l'homme exonération abusive les actes de corruption comme les 94 milliards yi nga xam ne yow mii lu ne yàq nga ko ca yàq Cheikh Seck ak ay ay miru ñing ak ñeneen lu ne Ousmane Seck est un menteur xaw ma euh, Ousmane Sonko est un menteur nangam 94 milliards nu mujjee ak Mamour Diallo dossier of nag lu mu wax il a exactement confirmé li Ousmane Sonko waxoon il a rendu un immense service à son pays lui on peut parler de son patriotisme lu ne yàq ngeen ko ko ci ci ci dossier boobu. mu yóbbu ko OFNAC ñu def enquête OFNAC mënoo leen a suspecté mukk d'avoir de la sympathie pour Ousmane Sonko la mu waxoon lépp ñu dëggal ko escroquerie faux usage de faux lu ne tey ma nga sawaa ji jël doomee ko directeur général ONAS te waa jooju waxuma 94 milliards yi lu ngeen yëkkul Ousmane Sonko amul te wax rek il était dans son rôle de d'opposant et surtout dans son rôle de député. Dans son rôle, le travail qu'il faisait était en, en rapport, en conformité avec les dispositions de la loi portant code de transparence dans la gestion de nos finances publiques. Des fou ci loolu code sous prétexte de euh, nangam de devoir de réserve devoir de réserve ba ce gëm noppi ci loolu mooy door a réer il faut arrêter donc décret boobu ñu jël dàq ko yow ña ca ña ca je peux dire que tu la base loo yëkkul Ousmane Sonko ci jamono yi amul non Mamour Diallo moomu nga xam ni nu mu tuddati Moustapha Diakhaté ne te fiche pas de nous Mamour Diakhaté na nga Mamour Diallo na nga ni ki loolu waxee

créé beaucoup de difficultés ña nek nekk ca titre foncier bi l'or un grand titre foncier état jënd ko Moussa Diakhaté toi qui parle de trahison beaucoup d'États état jëndee caisse de dépôt et de consignation qui période beaucoup ko état nous ñu de direction générale des impôts et domaines boba Amadou Bafane, boba ne booba Mamour directeur des domaines de risque caisse de dépôt et de consignation un projet de euh, construction de 100 logements sociaux, 100 wala nombre en tout cas un programme de projet de construction de logements sociaux bind DG ndax amul euh, des terrains disponibles DGID à la tête il y avait amul répond non il n'y a pas de terrain disponible n'y a pas de parcelle disponible. Dans la même période, nous avons titre foncier de 150 hectares. d'orco n'est privé à 6 000 francs le mètre carré. 6 000 francs le mètre carré. 150 nous avons 100 hectares de caisse de dépôt et de consignation. 6 milliards. En bénéfice, 5 milliards qui lui sont tombés du ciel. Là, les terre là de Bambilor le ca show nga xamni transaction yi ci def yépp fa ja lañ waroon fay sax fayuñu ca dara inspection générale d'état nee na ci rapportam waxuma le scandale beau ñu def fab 150 hectares jox ko Massamba 6 000 francs le mètre carré mu jaay ko caisse de dépôt et de consignation jël ci 100 15 caisse de dépôt et de consignation mu am ci six milliards di mu ngi fii ci Tuuba xam nga ko yow xam nga ko ak ñeneen ak ñeneen du moom rek ak ñu te transaction yañ def yëpp war yañ ca war a fay impôt sax fayuñu ko rapport inspection générale d'État bi leen duut baaram ne na la war a fay fayuñu ko rek impôt mat na trente milliards loolu ba mag ki ñëwee lu mu def ak ah, loo ko yeneen ak yeneen booy pal tu parles de trahison c'est Macky qui nous qui nous trahit depuis le 2 avril 2012 ñoo mënoon ñoo lekk suñu xaalis di 25 mais 22 ñu ngi ko wër ñoom Oumar Sarr ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Samuel Sarr à te tête d'une grosse entreprise alors que ñoom ñëpp dañ leen di duut baaraam même avant CREI yi IGE da leen duut baaraam bu méttee métti Eh, c'est pas de la trahison ça. Il faut arrêter. Et puis, quand nous pas c'est vrai, n'y a Mais nous, a pas 2 millions, 3 millions, 4 millions. Il faut l'une de deux. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter da Ousmane Sonko a bon dos ba nga koy traité menteur fenkat xam nga kuy fenkat koo xam ne kii responsabilité foofu Ousmane Sonko tu as été à ses côtés pendant une bonne dizaine d'années tu parles de trahison il nous a trahi ci engagement yi mu defoon yëpp daf daf il prête serment c'est extraordinaire la mu waxoon lépp defu ca dara yaa yàpp Ousmane Sonko s'il y un traître s'il y un manteur am nga keneen koo waroon koo ko waroon wax ku dul moom yaa yàpp Ousmane Sonko fen ak wuruj ak njublam yaa yàpp Ousmane Sonko xam nga ko ko dàq fuuf te nga woo tu nous emmerdes il faut arrêter et puis ba nga nee bàyyi nga léegi suur nga dem nga mu def la xawma lan nangam ministre chef de cabinet ensuite foofu woot cinéma ngeen ne da ngeen a tàggoo alors que tu sur les plateaux plateaux de télé tous les jours tu ne travailles que pour et pour son épouse booba ba tey mu ngi bëgg a yàgg looy liggéey Moustapha booba ba tey looy liggéey Bob ba tey looy dunde Moussa n'était ne fiche pas de nous nous nous connaissions le Moustapha d'avant 2000 et Moussa Diakhate de 2023 loolu la neex mën nga ko wax waaw léegi regg nga kii nga mën ngaa toog doo liggéey doo gont di dund naag sa njaboot leen dara li Sénégalais yi dund yow dundoo ko Ousmane Sonko day fen Ousmane Sonko c'est des terroristes c'est des li nekk terrorisme et puis Ousmane euh un Cheikh euh, man sax dama koy la réseaux sociaux yi di bañ police seen conférence de presse ba gens, wax lañ wax dara amu réseaux sociaux partout que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit. Cette affaire d'Ousmane est devenue une, euh, euh, euh, une dimension internationale. le journal France 24 journaliste France 24 mais nous nous gis ñu yor seeni nous di nous, nit ñi di leen romb di leen gis kay les forces occultes terroriste yi ngay wax anañu nit ñi de liñ gis ci réseaux sociaux yi mooy ñoo xam ne ñii lañuy def ñu ngi koy def devant police di gis gendarmerie di gis waxuñu leen dara ñuy joggi ci xale yu tëdd di leen dóor ay coup de seen gannaaw lu méttee metti ñu gis leen gis seen kanam réseaux sociaux yi wane leen ana yéen ana seeni force occulte ana seeni terroriste nun de gisuñu leen il faut arrêter Moustapha Diakhaté reg nga suur nga amatoo benn xalaat waaye da nga mandi booy wax sur les plateaux de télévision sama xarit bi naan Moussa Mbadou day naan encore une fois man jàpp mën naa doo naan sàngara doo naan beer doo naan leneen waaye da nga mandi am na leneen lu la mandil mooy mbañ coxor sa mbañ gi nga bañ Ousmane Sonko parce que xam nga ni loo luñ ko mën a reprocher am na njub goo xam ne gii ki nga nekkaloon pendant neuf ans mënoo leen a comparer tax wax na boppam quinze ans à la d' inspecteur des impôts bu ngeen ko xamaloon leen wax ngeen ko ba tey sa waa di dugg euh, patrimoine yi huit milliards nañ ko def sax cinq wala quatre patrimoine ñaata la am léegi déclaré wu de deux mille dix neuf noonu ko waxee te du ko déclaré mukk bu nu nax réeréwoo ak Macky Sall benn yoon ni mu bañee Ousmane Sonko nga ko bañee ni mu ko bëgg a faagaagale nga ko bëgg a faagaagale parce que yow ak ñii ma lay wax ni ñoo gën a bañ Ousmane Sonko ñeent ñooñu xam ngeen lu xam ngeen ne bu am Ousmane Sonko nekkoon président de la République bu gëstoo seen gannaaw bu boobaa mara de xam nga ko. ki tax nga xam nga ko Macky Sall xam na ko ñi màndal xam nañ ko loolu wax seen bakkan lañ ci gar ba dema dema dem ba ñaari at ñun téyenu Sénégal gi lu nañ fu mag lu ngeen yëkkoot sonk Sonko viol menace de mort pendant deux ans ndaw soosu ak waayam ji màndal naan sunu përëw sunu përëw sunu përëw sunu clé taxaw bisu audience dara benn firnde benn seede nga xam ne lii mun leen ko ci tëj ngeen xalaat corruption de la jeunesse yéen yéen ñàkk ngor voilà deux ans ferme mais ma waaw pourquoi ngeen koy barricade si comme da ngeen ko tëj deux ans ferme jàpp ko yóbbu kaso bañ ak Ousmane Sonko rek moo la tax ngay wër télévision di wax loo xam dama ne Moustapha Diakhaté nun xamoon nañ la aman 2000 xamoon nañ ko man je suis depuis cinquante ans la landerno politique lu bari xam naa ko Sénégal journalistes yi ngay jàkkaarloo di leen naax man nga leen naax waaye giñ naa cal ne boo jàkkaarloo nag man doo loolu nga doo ko wax bi bi fi Moustapha Guirassy recruté le capitaine la nga def naan c'est une tontu naa la ca de je t'ai répondu

affaire trahison affaire fen affaire nangam dama il faut arrêter yal na yal def ci ñu melni ni yow yal na ni yàlla tàggaleeg rew mi ñu melni ni yow yal na ni yàlla tàggaleeg rew mi te yal na bu len Sénégal te Sénégal ñu len déglu di ñepp di sét nu ñu mëna indi dal ci rew mi yow ngay gëna a garawal nañ yok doole force de défense et pour ñu gëna reyni nit ñëpp di wut nu Sénégal lu du dalal Sénégal yow ngay wax lii ngay wax mu a jaxate dama ni il faut arrêter man de buurti na ak yow man de lu dalal réew mi laay ñaan yal na yàlla dalal réew mi yal na fi yàlla indi jàmm yal na fi yàlla indi dal yal na yàlla delloo si xel yi réew mi sunu réew mi yal na yàlla def ci xel yi ñu sàkk ay pexe nunu fexe ba lii nu nekk nu jële ci sunu réew mi delloo ko ci jàmm delloo ko ci dal man mooy li may ñaan waaye ngay taxaw fii naan Macky Sall dialogue kii c'est de la trahison mais Macky Sall trahir na avant loolu qui nous a merde Cheikh euh, Moustapha Diakhaté bokk yi nag maa ngi lu ci wax ji euh, lu ci xaw ak kii parce que kii daa neexul a euh, Moustapha jaxate dafa neexul a nu yendoo jàmm